ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll a jot moo a xam li nga xam ne moom la rek. Aziz moom sëñ Modou Lamine Baara. sëriñ Sidi jàmbaar ji moom sëriñ Abdou Aziz Baara. mooy jël kado bi jox ko sëriñ Issa. mi ci sëriñ Basirou Porokhane. nanu ko jël sëriñ Isaaxa moom Cheikh Moustapha Bachir moo koy yóbbul sëriñ Bachir Poroxaan sëriñ Sidi moom sëriñ Abdoul Aziz moo koy jox. mooy doomi sëriñ Soy bu ak soxna Maguette Gueye ki nga xam ne liggéey sëriñ Tuubaa la xam suba ngoon guddeeg bëccëg li ma ko ne woon xénophobie bannie de son dictionnaire noblesse innée dans l'acte et le langage à la grande dame généreuse comme la mère Bali Muntaxa la pieuse. jaara et la vraie héritière à la sainte de la mourida ma pilim baaf ñu soxna Baali Muntaxa moom la ñuy dox prix bii ki ko koy dox nag mooy doomam ju baax ji nga xam ni lépp lu la réer ci téere yi boo ñëwee mu jox la ko ki nga xam ni moo doon liggéey di fayoo ko weer baayam woo ko ne ko dama bëgg nga jàppale ma ci liggéey sëñ Tuubaa bi mu teg ay diplôme am xotti passeport am muy sëñ Basiru Mbàkke moom muy Serigne Cheikh Toro Mbàkke moom sëñ Basiru Xuja Jeng moom sëñ Cheikh Modou Lamine Baara mooy joxe prix ci soxna Baali Muntaxa prix bi nag ki koy nangu mooy soxna Ndey Mbàkke mu sëriñ Mam Moor moom Seex Masamba Isa Jéey Moor Xuja Kumba Xuja Kumba Faal ànd Seex Xuja Kumba bàccante ceebu ma sëriñu bopp léegi nag sëriñ Seex Coro mooy jox prime bi soxna soxna Baali soxna Baali moom Seex Muhammadul Muntaxa yaakaari sëriñ Jiili Mbàkke pofti soxna ndey satub seex ma sàmba moo ko koy nangul sëriñ maam Thierno Mbacke moom Cheikh Modou Kara Mbacke Noreyni mu Seydina Ousmane mu maam Thierno Ibra Faty ñëw na mu ngi nii teew seexloo ko jur mbay ndaat ballante mbisin ni gay xuja kumba sire xuja kumba daaro xuja kumba faaloo xuja kumba sayib maam jay anta seek muy soxna matiloo gay taalibe Serigne saaliw bi nga xam ni jàmbaari Cheikh Cheikh Béthio Thioune jaami Serigne Saliou borom liggéey mag bi ci maam jaara Serigne Cheikh Abdou Lahad nee na jëfam ak pastéefam moo tax prix bi dem ci soxna Mati kenn doyu ko ci ku dul Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacké moom Serigne Abdou Lahad kon yéen ñi nga xam ni yéen la soxna Mati yebal ngeen ñëw taxaw nii sëriñ Mourtada Mbacké moom Cheikh Abdoul Ahad moo koy jox piri bi ndax nag képp koo xam ne liggéey nga rek da ngay fayu ñoo ngi ñëw soxna Ulaya ngi noonu di ñëw soxna Matiloo Gaydel Cheikh Mouhamadul Murtada moom Cheikh Abdoulaat soxna Matiloo Gaydel ku ne gis na liggéey bu rëy bu mu liggéey ci bis bi jëf ji mu ci jëf sëñ Mamoun loo wax na ko léegi indi na liggéey bu bare bari ci bisum soxna jaara bii te mës a gisee ak Cheikh Abdou Lahad def ko ngir jëmmi Serigne Touba ne Cheikh Moutada baayam rek moo ko doy ci mu jël prime bi jox ko soxna Matuloo Gaydel moom Serigne Cheikh Béthio ñu may ñu may caméra yi soxna Matuloo Gaydel jàmbaar ji ki bëgg Serigne Touba jeex tàkk ci Serigne Touba Cheikh Moutada moom Cheikh Abdou moo koy jox prime bi Serigne Abdou Lahad nee na kenn doyu ko ci kudul baayam kenn. bu àggalee soxna yi Lo jëf ji muy jëf yëpp tegagul bët sëñ ab sëriñ Abdou Lahad da koy def rek waaye nekk ci xef yi ne ci xel mi da ko gën ki ñuy jox ka ki ñuy jox nag diplôme bii mooy baa moom la baayam àndoon nag Cheikh Gaynde Fatma moo daan liggéey liggéey bu réy bi borom Masaalikul Jinaan ajaratu gàmmu Jóob mi nga xamante ni tey bi ma neen nañ wodd jumaay Masaalikul Jinaan dama ne ñun ñuy wodd ñoo jiite koddaay li jox ma dus millions ma jox ko Mbàkke yu fay waaye nag sëriñ Isaaxa mu Serigne Moussa Bassirou mooy jël nag diplôme bi jox ko nag jàmbaari l'islam jox ko l'infatigable jox ko la travailleur ki nga xamante ni liggéeyam du ko bàyyi mukk aji gàmmu Jóob mën ngaa yéeg mi ngi ànd ak Faat Mbakke aj mi nga xamante ni moo daan toogal Cheikh Mouhamadou Mourtada bàyyi leen ko mu yéeg waaw bàyyi leen ko mu yéeg mi ngi ànd ak aji ay da dem mu sëriñ Mbàkke soxna loo na yéeg rek jàmbaar jaa ngi nii Masaalikul Jinaan maa fa jëkk waaye lu ko mën a am alaaji Samba Jaw alaaji Ali Wañ Cheikh Bala Sam ñi ngi décoré kii nga xamante ni nag moo ne ci ginnaaw alaaji Mbàkke yu fay te fakk fakkatalu ko muy ajaratu gàmmu Jóob jox ko la sëriñ bi kii tey mooy rek sëriñ Basiiru mu sëriñ mu sëriñ Moussa Basiiru waaw kii tey ki la koy jox mooy rakki sëriñ Basiiru mu Cheikh Moustapha Bassirou kii mooy Serigne Isaaxa waaye jàmbaar ji tey mën ngaa am lii nu ànd Masaalikul Jinaan te bu soo yàq dara abi say aaj xam leen ni tey kii nuy àndal so moom la ñuy muy soxna gàmmu Jóob mu kan mu so mu Cheikh Mouhamadou Moussa mu Serigne Touba jërëjëf ok Masaalikul Jinaan waaw waaw ak kan gaaw leen ak kan mbokk yi nag tey yaram daw na ok kado bii ñuy bëgg a joxe taalibe bu mag ba kat moo ko joxe waaw ndànk rek kat moo koy joxe sëñ bi bu Cheikh de sëñ maam Thierno Mbacke lii ma yor fu ñuy jëleeti ku mel ni Cheikh Saliou Mbacké asamaan dootul tiim ku mel ni moom suuf si ñu taxaw ku mel ni moom dootu ci dox borom njurul borom njàppnal borom ndookaa borom lagan borom xayga borom daaru ñaarul ki nga xamante tey mooy juróomeelu xalifa Serigne Touba waaye nag kooku tey mooy borom tur yu yi muy Cheikh Saliou Mbacké taalibe bu mag ba di jàmbaar lool di Serigne Cheikh Béthio Thioune mi nga xamante ni kenn dootu ko fàtte Serigne Cheikh Béthio ci màggal yi Serigne Cheikh Béthio Thioune ci cant yi moom la ñuy jox nag lii di ko fàttali ko waaye ki koy jox nag doomi général Cheikh Mouhamadou Kara Mbacké Noreyni mi nga xamante ni mooy le général de Cheikh Ahmadou Bamba joxe cadeau bi na ñëw hmm? maam Thierno Mbacké mu Cheikh Modou Kara mu Cheikh mu maam Thierno moo joxe cadeau bi bii Cheikh Béthio Thioune ko moom. waa xaaral bu Cheikh Béthio kon may ko waaw waaye nag mbokk yi kado bii kiñ koy jox aji gàmmu jóob déglu leen bii bii ñu yëkkati di ko joxe ñi koy jox nag jëwriñu sëriñ Tuubaa ci Ndakaaru mooy kan alaaji Mbàkke yu fay borom Masaalikul Jinaan ki tabax jumaa yi tey di Masaalikul Jinaan ki nga xamante ni tey laa wax ni ngërëmal sëñ Tuubaa jot nañ ci kooku tey moom la ñuy jox kado bii. ah. dama ni Alaaji Samba Jaw ñëwal soxna Ndey Mbàkke mu sëñ Mamoor mu sëñ Masamba Mbàkke ana soxna Ndey Mbàkke soxna Ndey Mbàkke mu sëñ Mamoor mu sëñ Masamba Mbàkke yéen ñëw leen. délégué tey jii de bii diplôme moom dama lay wax ni la Alaaji Samba Diaw mi ngi ànd ak ki nga xamante ni mooy directeur général bu Touba TV di Cheikh Balla Sam waaye mi ngi ànd ak Alaaji Ali Wañ di sunu mag waaye ana soxna Ndey Mbàkke soxna Ndey Mbàkke mu sëñ Mamoor mu sëñ Masamba Mbàkke na ñëw moo joxe diplôme Alaaji Mbàkke yu fay Masaalikul Jinaan diplôme bi ñu joxe ji Mbàkke yu fay moo ko moom na ñëw Alaaji Samba Diaw diplôme baa ngi nii jàmbaari cheikh Mamadou Lamine Bara jàmbaari cheikh Sidi Mokhtar jàmbaari cheikh Mamadou Muntaka ibnu Cheikh Abdoul Bachir jëlal diplôme bii teg ko ci loxol soxna Ndey Mbàkke jël ko jël ko yow teg ko ci loxol soxna Ndey Mbàkke soxna Ndey Mbàkke jëlaat ko joxe ko ci turu Mbàkke yu fay kaay nii sa bàyyi la cheikh la sëriñ Mbàkke yu fay yaakaar ñëw leen ana grand Aliou Wagne ñëwal ba feeñ ah kooku day moo liggéey Masaalikul Jinaan nañ defaraat affaire bi yëpp voilà ma ni lii lii ñuy def ku liggéey sëñ tubaab murit yee la war a fay te ñooñu liggéeyal nañ sëñ tubaab moo tax murit bu mag bi moo leen di fay Samba Diaw mi nga xamante ni tey mooy jël diplôme bi ci soxna Ndey Mbàkke kii bàyyam la Mbàkke yu fay yaakaar àddina alaaxira muy sëñ ma moor mu sëñ ma sàmba Mbàkke sa maama maas xaside muy sëñ ma sàmba dañuy rendre un vibrant hommage kaay taxaw grand Ali seex génnal na la tuuti waa ñëwal nii waa kon na ñëpp seere ni Cheikh Abdoulaye dani ku liggéey sëñ Tuubaa murit yee la war a fay te moom nee na murit laa kon ku liggéeyal sëñ Bàmba rek maa la war fay moo tax mu jël diplôme yi di seereel ji jéego yu rëy yi yi ñuy def fii. waaw. salaamaaleykum. sëñ bi Mbàkke ñu ngi lay nuyu bu baax. di nuyu sunu sang yi nekk fii ci taabal ji ñoom ñëpp sunuy sëriñ lañu sunuy xarit lañu di sant taalibe yi bu baax prix bii ñu joxe tey jii jox sunu jëwrin mas euh, alaaji mbàkk yu fay te nii nga gisee Modou mbay sàmb soldar annoncé ko noonu rek la waaye hasard amul soxna Ndey Mbàkke mii ma ko jox sëñ Maam Moor mu sëñ ma Sàmba mooy sëriñam mooy mooy baayam sëñ Maam mooy sëriñu Mbàkke yu fay ci la jébbalu fonk ko lool nag di ko toppatoo lool man mii mu jox lii ma war ko yóbbul Mbàkke yu fay ak ñi ma àndal sëñ Cheikh bu sëñ Moodu Faati Xari mooy sama mooy mooy sama sëriñ kon ñun génnuñu waa kër sëñ Masamba ndokk nag ba nga xamee ne yow benn sunu soxna nga sunu sëñ nga te sëñ Cheikh sëñ Moodu Faati Xari moo koy denc kon lii prix bi ñun danoo neex lool dafa dugg suñu xol lool sëñ Ablaat di la sant bu baax nag ci sa kanamu waajur yii ndax première édition ba nëgë nii lii ñoo koy ànd xeeboonu ci dara jàpp la nga baax alaaji mbakk yu fay ci lii nga xam ne moom lay liggéeyal sëñ Touba fii kon alaaji mbakk yu mag lay sant bu baax a baax a baax di la gërëm bu baax a baax a baax te cant googu waa Masaalikal naan jigéen ñi dañuy dugg ci biir waaw jigéen ñi dañuy dugg ci biir ndax jigéen ñi déglu leen prix bi leen jox tamit lu nu mérité ndax alaaj alaaji mbàkk yu fay lu mu yëkkati lu ne ñoom ñii jigéenu Masaalikal Jinaan ànd ak euh, aji gàmmu jóg ña ngi ci biir jàpp bu baax ak ñoo xam ne taalibe sëñ Tuubaa yëpp kon prix bii prix taalibe sëñ Tuubaa yi rekk ci ndakaaru yëpp ak li ko wër la kon incha allah danañ ko jox alaaji mbàkk yu fay sant na leen gërëm na leen bu baax a baax wasalaam. alaaji Samba Diaw jëf kon bii moo jëm ci jëwriñ alaaji mbàkk yu fay mi yore baatu Serigne Touba ci Ndakaaru tabax nag jumaay Masaalikul Jinaan léegi nag bii ñuy joxe waaye dangeen di fàttaliku. sëñ Abdou Samad moom Serigne Souhaïbou yabal na Serigne Djili caatum Serigne Souhaïbou moo jiite délégation bi ànd ak Serigne Mouhamadul Hafiz moom Serigne Abdou Samat ak Serigne Mouhamadul Mourtada moom Serigne Abdou Samat ak Serigne Niis Touré ak Serigne Abdou Samat Touré ak Serigne Modou Touré ak Serigne Bassirou Bousso ak Alhaji Makhtar Sey Dubaay ak Alhaji Jili Ñang ak Serigne Khadim Sam ñii la Serigne Abdou Samat moom Serigne Sohaibou yónni yónni rakam ji di sëriñ Jili moom sëriñ Soaybu moo jiite délégation bi Cheikh Moustapha mooy jox prime bi sëriñ Jili caatum sëriñ Soaybu kado bi ci Cheikh Moustapha Serigne Sidi moo jox moo joxe bu lakk. Serigne Sidi Alaaji la koy jox. Serigne Sidi. moom Serigne Abdoul Aziz Baara. mooy joxe prix Abdoul Ahad Ka. monsieur le maire. Serigne programme. sëriñ Sidi sëriñ Sidi mooy joxe pir mu monsieur maire sëñ Abdoulaye Ka alxaaji Ndiaye programme moo koy nangu waaye nag ñi ngi koy jox nag premier adjoint au maire alxaaji Fallu ñëpp gën koo xam ci alxaaji Ndiaye kon sëriñ Sidi waaw sëriñ Sidi waxuma la premier adjoint au maire waaye sëtu sëñ Baara moom daa moom Touba kon bu jëlee nag kàddu gi di ko jël ci turu euh, sëñ Abdoul Ahad mu di ko jox Abdoul Ahad Ka maire Touba léegi nag jox ko nag ki nga xamante ni mooy Alaaji Ndiaye kon yaakaar naa ne mbir mi àgg na Alaaji Ndiaye di nekk ak ci. léegi Serigne Sidi di adjoint au maire moo koy jox Alaaji Ndiaye. adjoint au maire kon daal maire a jox maire aywa léegi ñu jox moom Serigne Cheikh moo koy nangu yóbbante na ma ay kàddu Serigne Khalil moom Serigne Cheikh ci Cheikh Abdou Lahad magam léppam ne Serigne Abdou Lahad ci boppam mooy jox prix bi Serigne Khalil kam xaritam wëllëreem mu jëm ci Serigne Cheikh Abdou Rahman ndax yóbbante na ma ay kàddu ci Cheikh Abdou taxawaayam sëriñ Xalil l'ambassadeur bu sëriñ Cheikh Dar Rahman jàmbaar ji sëtub Cheikh Ibrahima Fall waaye sëtub Cheikh Abdoulahi Mbacke borom dër bi ak se. moom sëriñ Saliou moo koy nangu soxna maam Fatou Kebe. di soxna waalo moom Serigne Saliou Serigne Saliou borom ñurul borom lagan borom ndookaan borom njawaan gi coroon gi bàyyi Serigne Cheikh Cheikh Moustapha soxna maam Fati Kebe moom soxna waalo ana soxna Nene Gay moom soxna Bintu Masamba soxna maam Fati Kebe ndeysaan rafet na lool jaadu na de ku topp soxna Xadi Baara mu Cheikh Mouhamadou Lamine Baara. Cheikh Cheikh Baara Diop. Cheikh Baara Diop. doomam doomam. mu ngi nii toog mu ngi nii toog. moom lañ koy jox moom lañ koy jox. ki ko koy jox ki ko koy jox. mooy Serigne Khalil. mooy Serigne Khalil. mu Serigne Cheikh Mbacke Darou moo ko koy jox soxna Xadi. moom Cheikh Modou Lamine Baara sëñ Cheikh Baara Diop ndeysaan alaaji Faal mu soxna Xadi moom Cheikh Modou Lamine Baara borom guy mind borom Mbàkke Kajoor soxna Xadi sëñ Cheikh Aziz sëñ Xalil moom sëñ mooy joxe bu soxna Xadi moom Cheikh Oumdou Lamine Baara moo ko jox sëñ Cheikh Baara sëriñ sëriñ Xalil moom sëriñ Cheikh sëriñ Cheikh Aziz nangu na liggéey bi ndeysaan ñuy woo waa woo waa kër Alaaji Nasiru Touré moom Cheikh Mouhamadul Mountakha nga xam ne liggéeyal na Serigne Touba ba xëy wuy ji nag Serigne Touba ñoom seen prix ki koy joxe mooy Serigne Fallou Mbacké moom Serigne Bara Khourédia moom Serigne Mor Diarra Borom Sam Abdoulaye Touré moom lañ koy jox Balaji Nasiru Touré moom lañ koy jox. alaaji Nasiru Touré moo jëkk a jébbalu ci sëñ Muntaxa jàmbaar jooju nga xamante ni moo nekkoon préfet Pikine liggéey liggéey bu ci diggante amoo un amoo deux amoo trois amoo quatre kon nag kooku tey nga xamante ni kenn du ko fàtte muy alaaji Nasiru Touré moom la ñuy jox prix bii tey kon na bisimilah na ko ñëpp seere waa kër Nasiru Touré ma ne bi nga xamante ni murit la woon yaakaar loolu Serigne Mountakha di ko bëgge lool kon moom la ñuy jox prix bi. ki ci tegu kan la kan moo ci tegu. waa kala alxaaji Nasiru Touré moom Cheikh Mouhamadul Mountakha ñoo ngi nii yéeg ci kaw xam ngeen ni bis bii dañ ko ci rendre hommage ndeysaan sëñ Abdoulaye Touré moo koy nangu ñoom soxna Ndéla Touré ñoom ñëpp ñëw nañu ñoom ñëpp bàyyi ko. ca kër alxaaji Nasiru Touré moom Cheikh Mouhamadul Muntaka ñoom ñëpp ñëw nañu ak dëkkandoo yi ak xarit yi sëñ Abdoulaye Touré lañ ko jox moo ko nangu. léegi sëriñ Cheikh Béthio ñëwal ñëwal nii sëriñ Ba Baara moom sëriñ Mamour Say Jaxate sëriñ Baara moom sëriñ Mamour Say Jaxate moom sëriñ Falilou. sëriñ Seexuna mu Seex Mustafa moom sëriñ Saliou surtout sëriñ Saliou bi mooy nangu pirmu Seex Béthio jaamub sëriñ Saliou soxna moomi Kebe soxna moomi Kebe yabal na fi délégation bu am solo. yabal na solo. moog soxna Assou Mbacké Gaynde Fatma. moog soxna Assou Mbacké moom Serigne Cheikh Gaynde Fatma. yëkkati teranga yu bari. yëkkati yu bari. def ko ci bis bi def ko Ba nga koy sant. mu ngi koy gërëm cant googu nag. mu ngi koy seedeel. Serigne Baara Mbacké moom Serigne Mamor moom Serigne Fallilu nga di liggéey liggéey bu rëy di kenn ci Cheikh Abdoulaye borom Abidjan borom garam basam cheikh Mouhamadul Moustapha soxna yom moom cheikh Moustapha mu Serigne Saliou maa ko koy jox ndeysaan laa ilaha illallah ku yuuta neex a jàngal lu ni waccoo waaw Grand Bassam dafa mat a bàyyi xel Serigne Touba wax na ne nafaani xayri laaw fii Grand Bassam waaye Serigne Mourtala mii moo dekkal Grand Bassam jigéen ñu baax ñooñu nag ànd ak moom soxna Marème Touré liggéey bu rëy ñu liggéey ko ci Abidjan moo tax ñu jël teraanga ji terere ko ko mu moog waa Abidjan gépp wax nañ ma ci bëccëg ni ma li ñuy indi lépp bu àllarba bu soobee yàlla foofu sëriñ bi ne dina ko fa fekk ah soxna Awa Sall bu Gabon sëriñ Saliou Seck porte parole moo koy nangu sëriñ Saliou mu sëriñ Amsatou mu moo koy joxe waaw soxna Awa bu Gabon soxna Awa Sall bu Gabon sëriñ Saliou mii moo ko koy jox moom sëriñ am sa moom Cheikh Abdou Lahad ana soxna Awa Sall sëriñ Saliou mii moo koy nangu mooy porte parole daayira Gabon ku ko fa fekk mu teral la teral la ba nopp woo gaañu ñu teral la ñëwal moom sëriñ am sa moom Cheikh Abdou Lahad sëriñ Sall moo ko koy jox Daara Mban moo ci des. oui mu ngi nii. soxna Fatimatu Fall lamp maam jaara. soxna Fatimatu Fall lamp maam jaara. jaara. ma ni Gabon sëriñ bi nee na waa Gabon yëpp ñu ngi sant Cheikh Abdoul Ahad mu Cheikh Mourtada sëriñ Abdoul Ahad Fall moo ko koy jox sëriñ Abdoul Ahad Fall jàmbaar ji ki taxaw Cheikh Abdoul moom Cheikh Mourtada moom Cheikh Abdoul Ahad laa ilaha mooy jox soxna Faat Fall lamp Maam Jaara ki nga xam ni du noppalu benn yoon ci liggéeyub soxna Jaara bi sëriñ Abdoul Ahad Fall moo ko koy jox kër gee di kër gee di kër Maam Jaara ca Poroxaan moom mii moo ko móol moo ko tabax ba mu egg ci ndigalal Serigne Moussa Bassirou sëñ Abdoulaye Fall na ñu xool caméra yi sono fat Fall doxal tuuti bii ñu joxe ñoo ngi koy jox soxna Kiné Cuun soxna Kiné Cuun mi bëgg ay bokkam waaw ñu baral ko soxna Kiné Cuun mi bëgg ay bokkam nee na soxna su koy na jong mu soxna Baali Muntaqa moo koy jox ajaratu Kiné Cuun ñëwal du ni ci bokk

moom la ñuy jox prix bi léegi buñ ko defee nag ñu teewul sëriñ saa ngi toog kaddu gi gi jëm ci Cheikh Moutada bu ko soxna kinne cuun nangoo bu noppee ñu toog ñu àggale li des ci liggéey bi dulaat mu jox ko kan ne sëñ Sidi lañ koy jox sëñ Cheikh Aziz sa prix soxna Aminta Lo mi nga xamante ni moo waral lépp indil lu Cheikh Mamadou Moustapha indil lu Cheikh Mamadou Lamine Bara prix boobu nag la ñu wax ni na ko Cheikh Abdoul Ahad jël Cheikh Mourtala Abdoul Ahad jël jox la ko gaa ñi na ko ñëpp seede waaw Serigne Cheikh Aziz mu Serigne Aziz mu Cheikh Mamadou Lamine ana Cheikh Abdoul Ahad Serigne bay bàyyi leen ko mu ñëw. may leen Serigne Mourtala mu ñëw may leen Serigne Mourtala mu ñëw may leen Serigne Mourtala mu ñëw waaw sëñ bi prix prix soxna Aminta dama ni ah gars yi kii ñu ko jox nag moo waral Daaru Xuddoos kii ñu ko jox moo waral guy mbind soxna na Lo mi nga xamante ni moo waral lépp moom lay jël prix bi gars yi jóg leen taxaw yéen ñëpp ku jóg taxaw yàlla yàlla faj sa aajo ma ne jóg leen taxaw jóg leen taxaw murid yëpp nañ jóg taxaw soxna Aminta Lo mi meññi Cheikh Mamadou Moustapha mi meññi Cheikh Mamadou Lamine Baara moom lay jël prix bi jox ko kat moo koy joxe Cheikh ab Cheikh Mourtala jóg leen taxaw gars yi sarxoole leen. ku sarxoole fekke déwén jërë ngeen jëf ma ni sarxoole leen ku sarxoole fekke déwén ma ni ku sarxoole fekke déwén ñoo ngi koy jox kan ah soxna Aminta Lo mi wutu Serigne Touba ci armée ya Cheikh soxna Aminta Lo wajuru Serigne Baara ak Serigne Modou Moustapha moom la ñuy jox kat kon na ko ñëpp déggandoo ah, tey jii nag tey xol yi sedd na raay bi. sëñ Modou Moustapha jumaa ji sëñ Modou Moustapha ñaari jumaa dootul am ñaari raay dootul am ñaari Serigne Touba dootul am Cheikh Modou Lamine mi daan bind ci jaww ji soxna mi way jur wa ko jox gars yi jërë ngeen jëf waaye cuun di nga am barke sëñ Touba jërë ngeen jëf waaw waaw.